Euh, delloosewaat na ko fii ci njaareem ci ay xéewalam mu bokk ci ay xéewalam kenn ku nekk xam na ne sëriñ bu mag bi yàlla na yàlla doo yokk ay leeram te taas ci barkeem fii la tàmbalee woon màggal gu njaareem fii la digle woon ñu tàmbalee fi màggal gu njaareem fii la ko jëkk a defee moom itam moom ci boppam. muy kon lu rey loo xam ne yi njaareem dafa bokk ci patrimoine yi sëriñ Tuubaa yoo xam ne yii lépp loo xam ne lii defe naa am na ko feneen fii ci njaareem la ko gën a am. kon nag muy bis boo xam ne bili bis bu am solo la ci lislaam bis bu am solo ci yoonu murit waaye nag bisum jaareem la ñu xam ni ñu bëgg a xamal ne yàlla ci baaxam moo fexe ba def ci ay xoli julit ñoo xam ne ñi gis nañu lumière bi nga xam ne moom la si Serigne Touba bàyyi bis boobu tey ñu bëgg koo delloo mu bokk ci bis yi nga xam ne bis yi ñuy gën a ràññee la ci màggalu e, Touba. dafa mel ne daanaka bu ñuy wax dañu mel ne wax ku mel du ma ne mënoo dem màkk mukk di aji te jaaruloo Medina ndax historique Madina bi mu am ci dundug yonente bi salallaahu alayhi wa sallam historique boobu la Serigne Touba am la Jurbel am ci yoonu murit historique boobu la Serigne la la euh, euh, Njaareem am ci lépp loo xam ne lu Serigne Touba liggéey la wala lu mu def maanaam loola li si Njaareem am mën nañoo wax ne feneen fu dul Njaareem amuloo ko fi kon nag bis bu mel ni bu ñëwee. ne ñi nañ ñëpp jàpp bis la boo xam ne bii ñun waa Njaaram day sunu teraanga yi tey ci la nekk sunu teraanga yi suba ci la nekk kon nag lépp loo xam ne yi danga tax bisu jëm ci kanam ñu fonk ñu ngi koy fas yéenee def tey ñaan mboolem ñëpp ñu ànd ci ak ñun barkeelu ci te xëyoo di nag fii lay tàmbalee fii lay jógee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin bokk ñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru tedd yi ci bés yu am solo yi ñu dëgmal ni ko Serigne Cheikh Mbacke Sow mi waxee waa comité local bu Diourbel te Cheikh Moussa Mbacke jiite ko mu xare ci comité national bi nga xam ne ñoo yor saytu doxalinu màggalu Touba te Cheikh Bassirou Mbacke Abdou Khadir mi yore kàddu yoon Mouride jiite ko ci ndigalul Serigne Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke ñoo dellusiwaat di leen fàttali lu ngeen fàttaliwul ñoo dellusiwaat di waxaat ne bis biñ doon xaar agsi na bis bi nag. njaareem la daan amee naka jekk fi la dee ameeti fii ci kër gu mag al buqatul mubaarak ren jii nekk juróomeelu yoon ñu di ko taxaw fii ci ndigal Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke ànd ko ak comité bi ñu àndal yëpp ren jii nag ñu indi leen programme bu am solo bu ñu xëyee ci bis bi le 12 incha allah rabbi novembre 2016 daañu boole njàngum alquran ak njàngum xasida ndax xam nañ ne sëñ Tuubaa lépp lu ko defal jiite ci alquran defal nga ko lu mu bëgg defal nga ko lu mu xam defal ko lu miin defal ko ci loo xamante ni ci la amee lépp moom sëñ tubaa Xaadimu Rasuul radiyallaahu taala anhu waaye jàng xasida tamit defal ko loo xamante ni ci la jaar ba am li mu am diggam ak yàlla diggam ak Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ci diggante boobu rek la nekkoon di ci xëy ak gont bu ñu ko xëyee ba fukki waxtu ak benn muy 11h ñu dalal gan ñi nag ànd ak ñoom ci liggéey bi tàmbali nag waxtaan wu njëkk bi nga xam ne moom la leen indi ren jii muy lan bis bi xam ngeen ne Serigne Mouhamadou Mountakha moy président d'honneur bi waye ren ji nañ tuddé ko Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké radiyallahu taala anhu tudde googu ñu ko tuddé nak ñu wara waxtaan ci dundu ak liggéey Cheikh Mouhamadul Bachir mbacke commission bi nga xamanteni ñoy saytu walu xam-xam ak aada ci biir comité bi saytu nañ ab liggéey bu am solo muy ab document bo xamne jëm na ci waxtaan ak xamle liñ ci mata xam ak liñ ci mëna xam dundu ak liggéey Cheikh Bachir mbacke lolu comité bi def nañ ko inshallah rabbi fas yéene ko baxé dolli ko ci li nga xamné mom lañ taxawé ci bisu le 12 boobu inshallah rabbi bu ñëwé ba fukki waxtu ak ñaar danañu pause dem waajal waxtu bi na xam ngeen suñu walu ko way defal bu julli jot da nga ko bàyyi dem julli ji ndax liko julli jaral fi ko tek ak fii ñu koy defee nga xamné fi la joxewoon serigne Afi Ahmadou mukhtar salawatul khams ginaa bi mu dikkee ci géej gi wax ko ci yam jox yam ko ci wax tek ko fu mu ko tegul fenn bokku ci ndinkaay wam sa chin mo xone na ngeen sax ci julli ak saraxe ak ñaan kon loolu nga xamante ni moom la digle woon dem ku toog waxtu woowu ñu nodd da nga jëm ci loola conférence boobu nag nga xam ne mooy am ci suba gi ki koy taxawee mooy sëriñ Abdoulaye Diakhoumpa Fulku bi ngeen xam moom moo koy taxawee di waxtaan ci dund ak liggéeyu Cheikh Mouhamadul Bassirou Mbacké radiyallahu taala anhu bu ñu àggee ci fukki waxtu ak benn ci fukki waxtu ak ci bëccëg jëm ñaari waxtu nag bu ñu noppee dellusiwaat ci jataayub ñaareel bi waaye loolu lépp na day ànd ak jàng alquran ak jàng xasida moom day ànd ak bu ñu desewaat ne am na beneen jotaay bu am solo ci ngoon gi ki koy taxee mooy Serigne Mbacke Abdourahmane feggoo ci ak Serigne Saliou Salaam professeur Serigne Saliou Salaam mi ngeen xam ban thème la ñuy waxtaanal mooy yar wala gis gis sëñ Touba ci yar yi nu doomu aadama ba mu nekk nit ba nite ba mën a jëriñ boppam mën a jëriñ am réew mën a jëriñ askanam waaye tamit xam bu ëllëgee fan lay jëm loolu mooy jotaay bu ñaareel bi nga xam ne Serigne Saliou Salam moo koy def ànd ko ak Serigne Mbacke Abdourahmane bu ñu noppee ci loolu nag ginnaaw takkusaan ci la cérémonie officielle bi nga xam ne mooy tëj jotaay bi di am ci kañ ci kanam Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadir bi nga xam ne moo jiite comité national bi bàyyi ko Touba ànd ko ak ñu ko àndal ñëpp fekk si comité local bi Cheikh Moustapha Mbacke jiite waaye ànd ko ak autorité administrative yi nga xam ne ñoo ci biir dëkk bi ak diwaan bi ñu jokkalante ay kaddu ci niñ ko baaxoo daan defee nun ak yéen muy ay njëriñ yoo xamante ni dana ñeel jullit ñi ñeel bokk yi ñeel xarit yi ñeel am di jàmm yi ba déwénit ak jàmm mbokk yi kon bisum njaareem a ngi nii bisu Sénégal a ngi nii adduna gépp ko bëggoon yàlla jànkal ko Sénégal Sénégal ñëpp ko bëggoon yàlla jox ko yàlla jox ko Jurbel Jurbel fu ne bëggoon na ko waaye tey ji ñu kër këru mag al boqatul mubarak bi nga xam ne nee na fépp ab leer ab lumière nekk la ko taal fii la kon nag bis baa ngi noonu di am samedi le 12 novembre 2016 lu boqatul mubarak kër gu mag bu ko kenn wute ñu ngi ci wow ñëpp mbokk yi salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.